fële nga xamante nii moo di ci Mérina Sarr nekk benn dëkku diine bu nekk fii ci commune bu Ndakalma ñoom daal dina ni amal lii nga xamante nii moo di gàmmu ki nga xamante nii moo di porte parole bu famille bi di du Mouhamed Sarr moom nag mi ngi xamle rek ne lépp loo xamante ni autorité yi waxtaanee woon nañ ko avant gàmm ji daal di nañ koy matale lenn rek moo xawoon sooxe mooy yéexaayu teew waa Sénélec te ci mujjantal ga mujj nañ teew chef régional tabarakallah bu ñu defee léeg-léeg suñu yaakaar jóge ci ñun jëm ci moom yónnee nañu ay médicaments yu bëree bëree bëri ñu jëmale sa xol suñu infirmier bi bu jàppale ñu lool ci wàllu pàcc tabarakallah ba tax na boutique bi ba tey képp ku wànq rek dem ko ñu màcc tabarakallah. commencé na léegi itam ñëw nañu bàyyi na ñëw yéex a ñëw.

ñaan nag rek ay mbir yu tuuti ci gàmmu gi waaye nekk xam ne ñoom daañu ci ci délégation bi mi ngi xamle rek ne am na liggéey yu nu war a sumb jamale ko ci ay télé fii ci. commune bi dinañ fexé ba nga xamante ni yoon woowu dinañ ko ci booloo walé li ci sëriñ bi wax. Mm-hmm. Euh, damay wax né dégg nañ ko bu baax. waaw euh, incha allah benn yoon bu ñu wara mëna défar ñong koy wajj ci dir bu gatt muy digënté seew ak gatt ñongi ñaan yalla bu féké né ñoñu yalla dimbali ñu bañ diko défar ñu ñaan leen ndax li wax dëgg yalla lu gatt la lo xamné ni wara war ko mëna défar ki nga xamante ni moo di xalif bi nag gannaaw ba mu rafetloo teewaayu ñëpp daal di ne ñaan jàmm sax fi nga xamante ni moo di ci réewum Sénégal.